alhamdulillahi fi sirin wal ilaanin wal abdulillahi ma lillahi min saani falhamdu la maani la haun wala alifun wala abdu haun wa hamzun summa la maani bizalika aljamacu qad saara alkamaalu lahu farqan wa jamcan wa jamcu aljamci fi anin salla alayhi ilaahu alarsi mujtamican fihi alxaqaiqi min anin ila anin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 di ko ñaan lu ñu jaamu mu néew mu bëri yàlla na ñu ko boole nangul ca matam nga ak mbaaxam nga na mu toll bañ ñu ko nangulee ci suñu mata di geeg manqué geeg mën tooñ bi di ko ñaan rëcc rëcc yu ñu yëg ak yu ñu yëgut yu ñu tay ak yu ñu tayut yàlla na nu boole labal ci géeju njéggalam gu yaatu gi bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa njëkk ñuy sóobu ci waxtaan bi ñuy wax kàddu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di massawu mboolem jullit ndax tiis wi ñépp a ko bokk muy xew-xew bu am fan yi ñu koy wax Abdoul Aziz Ba ñu gën ko xam ci Aziz Dabala ak beneen xaleem bi nga xam ni moom la yàlla dogal li mu dogal ci moom ñu bokk leen faat ñu ngi masawu coono ci seeni mbokk di bokk ak ñoom tiis wi ak naqar wi waaye di masawu mboolem jullit ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko waxee woon nee na daal misaalu jullit ñi ci seen yërëmante ak seen bëggante ak seen soppante dafa war a mel ni misaalu jëmm jëmmi doomu aadama nag su noppi di métti jëmm ji yëpp ay manifesté wu su bëñ di métti jëmm yëpp ay manifesté wu bu bët di métti jëmm ji yëpp ay manifesté wu moo ne benn cër boobu rek mooy métti mënoon naa mën a dem tëdd yeneen yi moom jug doxee seeni activité mais déedéet jëmm ji yëpp ay àndandoor yëpp ko kon ak astiis wala ak nattu wala ak musiba bu wàccee ci famille ñëpp a war a bokk ak ñoom tiis bi ak naqar bi kon metti na ba ci kanamu yàlla waaye ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole leen jéggal te yërëm leen te def aljana muy seen dëkkuwaay li ñu cay wax daal di ko jàllale comme message mooy doomu aadama yi nañu tey te wax lu ñu xam xew-xew bu am nag Sénégal kenn ku nekk ci sa xel ngay waxee ci sa xelaat ngay waxee ci ni nga toll ngay waxee te lu baaxut wala taxfu ma sa laka bi ilmun nit ki warul taxaw ci lu mu amul xam-xam li nga xam sax war nga cee mën a mànd waxuma laa li nga xamut kenn ku nekk nag mu ngi ubbeeku di wax kenn ku nekk it mu ngi tuumaal asgor mbir am na ni mu amee ump na ñëpp mais yaral sa xel ak sa làmmañ ba bul wax mukk lu la sa borom di jéppee waaye kenn ku nekk nag mu ngi taal live defar vidéo bàyyi message di tuumal as gor nañu bàyyi loolu ndax doomi aadama lu mu xam-xam-xam am na fu xam-xamam yeggut wala fu mu matewut kon li li sa xam-xam fu mu mate yegg fa sax war nga cee mën a am limite waxuma laa li nga xamut kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ca topp mooy nanu feexee ragalaat yàlla bàyyi xel sunu borom te gëm rek ne bakkan dafa foor damay dégg ci maam Cheikh Tidiane si al mu ne coono bi yàlla daj ci bind ruuxu doomu aadama bu tool nun la daj ci bind ruuxu melentaan bi kon bakkan bu mën a doon rek dafa foor du lu ndaw doomu aadama nag bu mënee dem ba jàkkaarloog moroomu doomu aadamam yëkkati luy lor jëmale ko ci moom kooku wax dëgg yàlla kuy yàq société bi la kuñ fi war a mën a la kuñ fi war a mën a jëli la te it ñun ëpp ñu yàlla yërmande ci sunu bopp ëpp ñu yenent bi yërmande ci sunu bopp te yenent bi soxna tooñ na boromam muy soxna su mandu te am ragal yàlla ñëw ba ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko taxawalal li yàlla digle ci man yenent bi xool ko ne ko demal boo amee doom ak jàmm mu nga ñëw ñu taxawal ko bu mu amee doom ba pare ñëw jébbalat boppam yenent bi yenent bi gaslu ak pax ñu dugal fa ndaw si di ko jàmbam de ñu sangu ko sangu ko jullee ko jébbal ko boromam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam comme mooy jëmmi yërmande borom bi jëf jooju mu jëf ko ndaw si ngir lan ngir lu yàlla wax kon ñun bu yàlla waxee li mu wax ci alquranul karim mu ne dàng feeñ ñu ne duñ ko utiliser te ne ay jullit kon suñ jullit gi lan la te man lam yaxkum bi ma anzalallah fa ulayka humu zalimun fa ulayka humul fasiqun fa ulayka humul xasirun ñi nga xam ne tënkuñ seen bopp ci loi bu yàlla tëral ñooñu ku leen dàq tooñ ku leen dàq jalgati ku leen gën a doon kàccoor gisuma ko kon loi bu ñu mën a appliquer bu dut loi yàlla bokk yi appliquer wuñ benn loi loi yàlla mooy loi loi bi nag mooy lan ci alquranul karim boo demee wa katabna alayhim fiha anna nafsa bi nafsi wal ayna bil ayni wal anf bil anfi wal udhna bil udhni wa sinni bi sinni wa juruhu qisaasun gis nga ku rey bakkan li àtte bi mooy dañ ko war a rey ki dagg nopp dañoo war a dagg noppam ku damm bëñ dañoo war a damm bëñam ku jam nit dañoo war a xool jam-jam ba fu mu toll ñu nattu loolu mu jam lu toll noonu mais su fekkente ne dañoo toll ci réew moo xamante ne ku rey nit ñu jébbal la yoon yoon jël la tëj la benn cinq ans benn dix ans libéré la bàyyi la nga nekkaat ci société bi di dox mais bakkañ ba kañ ñaata nit lañ fi tëjoon ñu rey ay nit ñu génneewaat leen ñu nekk ci société bi ñu leen defal sax interview ñuy wax seen jaar-jaar ak ñaata nit lañ rey ñaata nit lañ agressé ak nuñ doon dundee ñaata ñaata ñaata latir mbay ak ay ngaak eh, eh, ay dof nday ak ñeneen ñu mel ni ñooñu ñu leen defal interview ñuy wax seen jaar-jaar niñ daan def seen banditisme lépp ñu nga xam ne dañ leen a waroon a effacer si société bi mais ñooñu ci boppam lañ jël. bàyyiwaat leen ci biir société bi ñuy dox ñu leen defal interview ñuy wax mais ëpp ñu yàlla yërmande wax dëgg yàlla ëpp ñu yàlla yërmande ci sunu bopp ëpp ñu yàlla yërmande ci sunu bopp kon su ko defee bu ñu bëggee daal réew mi tegu ci yoon ñu noppalu ku rey rek dañ la war a rey ku damm bëñ dañ la war a damm dañu dañoo war a damm sa bëñ ku damm tànk dañoo war a damm sa tànk ku la fadd ne la pardon sax fàdd ko ne ko pardon mu jeex takk su ko defee am na ci loo xam ne bu buñ ko boy boyalee dafay jéggi dayoo des fois nga dégg diw rey na diw dëkkandoor bi rey na dëkkandoor bi euh, xarit bi rey na xarit bi pourtant ku ko jege la woon jëkkër ji rey na jabar ja waajur wa rey na doom ja doom ja rey na baay ja yii yëpp ñu ngi koy dégg di ay xibaar yoo xam ne kenn ku nekk yaa ngi dégg lii ci suñ jamono jii wala ci suñ réew mii di Sénégal mais ñaata yoon nga dégg gum ñu ne yéeféer bi rey na yéeféer bi ndax dañoo amoon peleña wala catholique bi ak catholique bi de dañoo am peleña ba ñu ba kenn ki rey kenn ki loolu est-ce que ñun mos nañ ko dégg déedéet waaye li ñuy dégg waxtu wu nekk rek mooy jullit bi de rey na jullit bi jullit bi rey na jullit bi mbokk mi rey na mbokk mi xarit mi rey na xarit bi loolu rek ngay dégg ci suñu réew mii di Sénégal li war a rey bi nag mooy fulaan xatala fulaan min ajli mal diw rey na diw ngir lan ngir alal mais bi dee cinq cent mille bi dee un million bi dee cinq million bi dee dix million vingt million cent million sax jaru ko cent million sax jarul ngay xoqatal nit waxuma laa nag tiim ko di ko rey tarit waaye niw diw rey na diw ngir lan ngir alal diw rey na diw ngir lan ngir poñetitu àdduna ñu teg ko fan ndax yàlla waxul ne jullit bu nekk araam na ci yow sa deretu morom jullit bu nekk araam na ci sa morom deretu morom nga nga daal koy nga daal di koy tuur kon su ko defee buñ toogee nag di woote woone ñun xeetu yenent yàlla muhammad lanu sallallahu alayhi wa sallam te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ma ni aduna bi tukki sax aduna bi tukki aduna bi tukki moo gënal yàlla nit tuur deratu moromam te waxtu wu nekk ñu ngi toog di xool rey gi mal nii ay ganaar mal nii ay wëñ ci rey nit taal ko ci jam nit ci rey nit suul ko ci rey nit daggate ko ci yu doy waar a doy waar yoo xamante ni mbokk yi ci suñu réew mi ñu koy dégg di ko gis waxtu wu nekk war nañ ci mën a amaat nag taxawaay wu am solo taxawaay wa nag dara jiituwul ci jël luwaa bi yàlla tëral ñu teg ko ci suñu kanam suñ bëggee dund dundu ko tranquille suñ bëggee dund dund gu tranquille nañ jël luwaa yàlla bi appliqué ko yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ma ni ñu mabbu kaaba gi kaaba gi ñu mabbu ko bam doon ay doji doji doj yépp ci suuf tasaaroo nee na moo gënal yàlla nga jàkkaarloog sa moromu jullit tuur deretam ci lu dul benn benn benn benn benn jafe yeneen bi sallallahu alayhi wa waxaat mu ni képp koo xam ne yëkkati nga ngànnaay jëmale ko ci sa mbokkam jullit yàlla rëbb na la ñooñ asamaan rëbb na la nee na yow mi ko jubalee sa mbokku jullit donte ne foo moo la tax a jóg foo Ousmane juróom-ñaar rëbb na la yàlla subhanahu wa taala rëbb la waaye léegi ki nga xam ne da koo yëkkati ngir jëmale ko ci mbokku jullitam ngir rey ko rey kooku lan mooy attem kooku lan mooy attem mooy naaru jahannam képp ku rey nit te nga te nga rey ko ci tayeef sa payoor mooy safara jahannama kon su ko defee yëpp benn bu ci nekk dañ ci war a amaat taxawaay encore une fois ëpp ñu yàlla yërmande déedéet ëpp ñu yàlla yërmande kon bu amee lu mu teg rek li tax mu teg ko moo ko xam xanaa sax yow aw aw aw aw mala sax boo koy boo koy boo koy rey war ngaa rafetal niñ koy rey jaaduwul sax ak rendi rek rendi rendi la lislaam la lislaam la lislaam d'accord rey baaxul mais rendi bi sax dañ ne la na rafet ci mala waxuma laa nag kon nga jëmale sa ngàndaay jëmale ko ci sa mbokk jullit su ko defee dafa doon loo xamante ne lu doy waar la yàlla subhanahu wa taala dafa wax mu ne nag xaraamal naa ci yéen kenn ku nekk deretu moromam xaraamal naa ci yéen kenn ku nekk alalu moromam xaraamal naa ci yéen kenn ku nekk deru moromam kon kenn ku nekk sa deratu morom araam na ci yow nga tuur ko kenn ku nekk sa alalu morom araam na ci yow nga jël ko kenn ku nekk sa deru morom araam na ci yow nga yàq ko mais réew mi ñu nekk di Sénégal ñu ni neen ñooy xastante ñu ni neen ñooy tuumalante ñu ni neen ñooy yàqalante ñu ni nen ñooy ñooy ñooy reyante suñ tollee ci boobu jamono nag dafay laajaat tuuti ñu taxawaat xoolaat ñun ban genre nit lañu xoolaat ban genre nit lañu su ko defee poñetitu àdduna am na ci loo xamante ne jaru ko mbokk yi poñetitu àdduna am na ci loo xam ne jaru ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kullu muslim ala muslim xaraamun dammuhu wa maaluhu wa irdu jullit bu nekk rek araam na ci mbokku jullitam alalam deretam deram te benn bu ci nekk ñun moo ñu moo diw am na duma ma fi diw siiw na duma ma fi diw am na tur du ma fi bàyyi mais est-ce que programme boobu noonu yàlla programme ko moom ak yow programme bi la yàlla programme benn lam dit didit nañu nanguwaat dogalu yàlla kenn ku nekk li ko yàlla terale li ko yàlla wërsëgale li ko yàlla jox ñu nangul ko ko te ñu bàyyi xel rek ne tooñ gii ñu nekkee waxtu wu nekk ak jamono ju nekk nañu ba xel rek ne lëndëm lëndëm la ñuy jura rek ci kanamu yàlla yowmal qiyaama wa zulmu zulumaatun yowmal qiyaama tooñ moom ay lëndam lëndëm rek la ay jafe-jafe rek la ay xat-xat rek la ay gàllankoor la keroog yow mal xiyaam ci sa kanamu borom te gis nga ñaani ki ñu tooñ ki ñu tooñ ñaanam yàlla du ko delloo fu tollu day dal su ko defee ñu bàyyi wat sunu bopp xel te it ñu bàyyi xel bu mbir xewee kenn ku nekk di përifitoo di ci waxaale lu la neex di ci waxaale loo xamut mbir am na kenn xamul ñun ñëpp dañoo toog rek dégg rumeur bi am yow mi nekk fii ba àll ñoxor xopp taal sa waxtaan ni nii la amee nii la amee diw mii nii la diw mii nii la diw mi nii la yow lan moo la ci leer lan moo la ci leer wala taxfu ma laysa laka bi ilm inna sama wal bashar wal fuad ah nañu bay xel ni yëpp benn bu ci nekk yàlla fa koy laaj man baax na màndu baax na su ko defee ñu bàyyi wat sunu boppu xel bu baax a baax a baax waaye daal lu ci mënti xew ñu ngi naqarlu mbir mi ñu ngi koy mititlu tiis bi naqar bi ñu ngi koy bokk ak ay famille ñu ngi koy bokk ak mboolem jullit képp ku am ngëm yàlla ci sa biir xool rek wax dëgg yàlla jëf ci naqadin la jëf ji nag mooy bu mujjee am waaye fan yi weer yee ñu génn wala semaine yi la ñu génn ay jëf yu ñaaw am nañ fi te lii buñ ko boy boyalee kanam la suñ ko boy boyalee kanam la jëm kon su ko defee daal waxtu wu nekk bu ñu ne buñ jàppee ki ka def wala buñ xamee ku jëf-jëf ji ci kaso bi lay dee ak vingt ans lañ koy tëj ak dix ans lañ koy tëj ak cinq ans lañ koy tëj déedéet ki nga xam ne dafa def crime moom buñ ko jàppee rek daanuk yàlla moom lañ war a appliquer ci kawam ki rey dañ laa war a rey ki sàcc dañoo war a dog solo xeetu mooy yàlla yi lislaam jël tëral ko kenn ku ci nekk loo ca def rek atte lislaam bi daal ci sa kaw li mooy yoon li moo jaadu waaye su fekkente ne ki rey nit ñu jàpp la tëj la benn cinq ans benn dix ans nga génnaat nekk ci societé bi di ko ndamoo di ko tiitaru di ñu lay defal interview ngay waxtaan di ko di ko di di ci yëg sa bopp ban jamono lañ toll ban Sénégal lañ nekk su ko defee daal wax dëgg yàlla ki dee moom dee na ba pare wala ñi dee ñii dee nañ ba pare. li war rek mooy ñu ñaanal leen yàlla njéggal ñu ñaanal leen yàlla subhanahu wa jéggal leen yërëm leen oyofal suuf si seen kaw waaye nag bu ñu bañee lii nii xewaat suba wala gannaaw suba kenn xamul ci kan lay xewee ah. parce que ñoom ku leen waxoon ni nii lañuy demee dañ naan la da fen waaye xoolal ci demin wii ñu dem ëllëg wala suba wala gannaaw suba ku mën a wax ne man du doon man mii wala doo doon kee wala doo doon kee kon nañ ci bàyyi xel li koy arrêté nag lenn rek la mooy li yàlla subhanahu wa taala wax ñu appliqué ko li yàlla subhanahu wa taala wax ñu appliqué ko buñ ko appliqué rek léegi tey nga gis réew mi dund dund wu tranquille mais buñ nee dañoo ëpp yàlla yërmande ci suñ bopp rek lu bëri day yàqu ci penc mi te sax yàqooti la ñuy wax parce que penc mi moom xas na yàqu ba pare waaye pour ñu régler waat ko ba mu teguwaat ci yoon bu normal foog ñu jël mbokk yi lu yàlla wax jëfandikoo ko mënuñoo am lu sut alquran mënuñoo am lu ko gétt mënuñoo am lu ko gën a màgg mënuñoo am lu ko gën a tedd su ko defee bu ñu jaay suñu ngor bu ñu jaay suñu diine bu ñu jaay suñu dignité ci poñetu àdduna bu jeex bi te réew mi dafa jaxasoo lu nee ngi fi nag lu nee ngi fi franc-maçon yi féticheurs yi lu bon loo xelaat rek mi ngi ci biir réew mi lenn lu ci nekk nag li la cay muccal rek moo ñaan yàlla musal la rek yàlla nañu yàlla boole defal ndimbal defal ñu sutura defal ñu tawfiix may ñu gudd fan gu ànd ak wér bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam di wax rek ne seen bokk la seen soppi seen xarit Mouhamed Tayib Cissé in uridu ila al islah mastaatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi al unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu